Euh, président Macky Sall nag war dañ ko gërëm parce que ku ne xam na ni vaccin lu jafé la ci aduna réew yi am doole yi sax am nañu problème pour pour pour matalé ko donc bu fekkante ni bi nak président Macky Sall def na lim wara def yépp ba dugal vaccin bi Sénégal lolu def na xam na ay responsabilités am jël na ay responsabilités am ba lim wara def def nako li ci dess nak population yi ñoo dess des ñi nga xam dañ leen di wax nan leen bu leen ñaxu ñooñu contre ñu ñax bi. waaye président Macky Sall la contre ndax bëgguñu mu am ndam mais loolu nag leneen la bu fekkente ni bii daal mbir mi mbiru dund ak dee la am na loo xamante ni bii kenn du fooye sa bopp kenn du kenn du xaru donc ñuy wax jàngalekat yi évidemment jàngalekat ak euh, ak élèves yi nga xam ni ñoom dañoo am am feebar ñoom euh, ñoom la njëkk a ñàkk ndax ñoom ci groupe bi la ñu bokk li ci des nag mooy groupe bi nga xamante ne bile mooy ñëw ñi ci ëpp euh, bu vaccin bi si million vaccin yi ñëwee ñoom.

dugg seen réew te amoo te ñaxu mooy lan il faut Sénégal yi comprendre ni ñaxu bi képp ku bëggati dem ci kanam tuddi ku bëgg dem aji Màkka wala nga dem aji Rome wala nga am bëgg visa boo ñaxuwul doo fa dem duñ la may visa donc te it nag nit du du xaru fi mu nekk nii euh, ñu xam ni président Macky du jël benn benn poison dugal ko ci euh, ab type du ko ñax nit ñi bu ko defee dootu am ñu mu jiite am na loo xam ne xel moo koy xel moo koy nangu donc lii du ay du ay du ay affaire politique du affaire syndicat affaire dund ak dee la bu jàpp naa ni kenn warul xaru te li ma jàpp mooy képp koo xamante ni bii bañ nga ñaxu da ngaa bëgg a xaru te it boo reyee da ngaa bëgg a reyal nit ñi parce que feebar bi wàlle la